salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bismillahi rahmaani rahim barke Seex Ahmadu Bamba Mbàkke xadim rasul xalaati mag ci ndawi tey na ngeen xam ne ndaw doole xam teg ca xër fu àndul ci ak njub jërul sedd cër ne dooleeg alal xam-xam ak fit bu rëy dafay tënku ci njub safaan ba di ay li tax nag ma tiit réew mi daa màgge ndaw te bànneex bakkan addunaat yomba bew te ndaw ñi ma gis seen yi tey am alal ñu néeway xalaat diine mbaa ay mbugal te ndaw ñi alal tax na duñ sàmm ngor ñu néew ñoo ca am diine tey jomba wor te koo am ci moom yéene la nga koy defal mu yaakaar na ab def nga danga koo xamul dafa ñuy jagal mbaa ñu wax luy defar ba dootoo xalaat dénk leen benn cër te it néew na koy jox place nag mu dem su koy sàngar ak sañ sa saavun du ndam ko ay waajuram am alal dal di bew te day foog ne noo sax ca do nga xew ko ay waajuram ñàkk-ñàkkam nga sar du xam dootu am mbaa mu man wopp wér xanaa ñii ko leen jiite war leen a xam te ñor yor mu lëj fuñ newul it du dem ko am xam-xam ak xel di ndaw bëgg cër na am teggin ak yar ju boog ñi ko jur ku jóg topp ndaw ak jigéen ci bëggam ba jox leen sa mbir njortu ñaaw ca mu jëm du wax bàyyi mag te ndaw ñeeg jigéen ñii du tax mbir yi jag te loo leen lebal ñàkk ngir duñ la fay te boo leen tëjee it da ngay yokk ay da ngay tànn aw mag ñu jub dénk ndaw mu wuuf leen di leen teete bañ ànd raw lu ndaw soxla day foog ne doole ko man te jëf xam-xam ak ay xalaat moo ca gën li war mooy jigéen topp góor jiitu dox na ndaw topp mag di ne ngor duñ nu neex fu góor ak jigéen mag di ndaw bokke mbir te man koo ci njub daal di am ngën ji cër tubaab yennu def ay kuréel ngir di wor te ndaw ak jigéen buñ soree mag di lor na ngeen déglu koy ñax di ñaax ay waxam bu lamboo njariñ di ne jar na gëm Mbàkke Bawal àllarba juróomi fan ci weeru avril 2023 Ahmadou Diongo Baye Diagal baleen ma ak jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëfati